réew nag lan ñaar ñoo koy développé mooy nit di ressources humaines ñaar séq ko muy njàng ak paj njàng bi nag soxe na parce que dégg ngeen ne xale yi am bac orienté guñ leen naam sax fan yi passé newoon nañ orienté nañ leen wante ministre bi dafa ñëwaat ne orientation yi ñu defoon baaxul feek fukki fan ak juróom dañ leen orienté waat waaye bala ngay orienté nit fenn kay fa nga koy orienté ñu am fu ñu toog am ñu leen jàngal am classe yu ñu nekk te loolu nekku fi mu may fàttali nag programme ajustement structurel bi nga xamee ne amoon na ca at yële passé waa banque mondiale ak waa mi ñëw nañu njàng mi amul solo paj mi amul solo nañu fexe nag ba loolu ba ñoo dal te yaakaar naa ne yéen ñi nga xam ne yéenay suñu ministre yi di ngeen fexe bi loolu du am mu am benn yóbbante buñ ma yónni mooy ñun biñ nekkee xale dëkk bi ma dëkk muy Tataguine dañu daan topp ñi nga xam ne ñooy changer làmp yi bu ñu jógee mbuur di changer làmp yi di ko sànni ñu topp ci seen gannaaw di jël ay pile wandeer di ci def pour di ko def ci suñu kër yi mu am làmp dëkk boobu dañ ne chef lieu d'arrondissement la am na quatre-vingt mille âmes centre de santé ba léegi mënu koo am la fa nekk ak akas néew waa dëkk ba ñoo ko fa def ñu ne ma woon nag boo demee assemblée nga waxal ma ministre bi mu seet nan la ñuy jàppale ci loolu naam sax fii considération générale la ñuy wax xam naa ne bu ñu demee bi ci ministre santé dinañ ko wax wante nag budget boo koy defit loolu war nañ ci bàyyi xel.